mooy lu indi lii yëpp lu ñu dund depuis jeudi parce que sama intervention dama koy def uniquement sur l'aspect juridique parce que sama métier pour que sénégalais yi comprendre un peu parce que ñu bëri comprendre poursuivre nañu benn leader politique muy sénégalais comme tout le monde di membre du f ci poursuite yi procureur lu ñu koy reproché mooy viol ak menace de mort ñu jógee ci procureur egg ci juge d'instruction toujours viol et menace de mort ñu jël ordonnance de renvoi yónnee ko devant la chambre criminelle war ko juger toujours pour viol et menace de mort ñu egg en pleine audience ñu requalifier les faits donc c'est nouveau bu ñu requalifier les faits war nañu permettre ki nga xam ni ñu ngi koy poursuivre mu formuler des observations dans le respect lu ñuy naan en droit du contradictoire mais loolu amul sénégalais yi li ñuy jàpp devant un dossier aussi sensible et aussi léger Je me rappelle, le 7 février, j'avais dit, 2021, j'ai rendu visite à Ousmane Sonko chez lui et j'ai écrit qu'il n'y avait pas de viol et que je sentais la puanteur d'un complot. Sur ce point, je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de viol. sénégalais li jàpp li ngeen ko toppee woon te bind ko ci parquet bind ko ci instruction ñëw indi ko devant la chambre criminelle bu fekk y de viol on la l'acquitte un point à la ligne waaye bëgg à tout prix rendre la personne inéligible créer fa une nouvelle infraction gis nga le droit on peut le tourner dans tous les sens def ci lu la neex waroon nañu yem juste ci accusation bi yóbbu ñi ñi devant la chambre criminelle ancienne cour d'assises acquitté ko parce qu'il y a pas de viol Sénégal jëm ci kanam parce que li yëpp du xew mais vouloir le rendre inéligible comme ni ñu ko defee pour d'autres loolu moo indi problème bi et ñu ngi koy naqarlu parce que tout le monde nous regarde tey sénégalais c'est la risée du monde nous étions une vitrine démocratique mais fu ñu toll ni aujourd'hui je pense que on a honte même de dire qu'on est sénégalais ci loolu le F24 va poursuivre son travail pour que 2024 képp ku war a bokk-bokk ak ay galgal ak yooyu ñu dindi ko fi dinaa ñëw ci troisième point mooy wax léegi parce que c'est continuité la deuxième point bi bu ñuy wax démb gis ngeen des autorités policières def seen conférence de presse à partir de données yoo xam ni dictées par des politiques c'est vrai qu'ils sont sur le terrain ñun tamit quelque part on est sur le terrain Sénégal lañ nekk gis nañ fi loo xam ni en mars 2021 dañ ne woon amul sur le maintien de l'ordre public waxuma la la sécurité privée des personnes et des bien l'ordre public ce n'est pas du ressort de privé jël ay personnes yoo xam ne nekkuñu policier nekkuñu gendarme nekkuñu force de défense et de sécurité jox leen ay armes rappelle les nervis jox leen ay pick-up on les a vus ñuy jaar ci kaw policiers yi di génn kenn waxu leen dara les devant les gendarmes di tirer sur la population su ñu nee loolu amul ils racontent leur vie et dans la conférence de presse d'hier waroon nañu ci wax mais on voit des photos ñu ne ñii c'est des gens qui sont mêlés c'est des forces occultes et pourtant ces pick-up là ont pris départ devant la permanence de la paix J'appelle le procureur à me convoquer, comme nous me convoquons à Je lui donnerai les images. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Les forces de défense et de sécurité pour les citoyens, pou le Sénégal, quittent les commissariats, les camps militaires, la gendarmerie pour accomplir leur mission. Pas devant dans une permanence politique. Les plaques d'immatriculation, on va les donner. L'enquête sera là devant le d'instruction qui va approfondir. ak travail bi nga xam ne F24 mi ngi koy def dana egg à la CPI ñu ñëpp nous irons travailler là-bas moi je suis avocat à Paris Branco dana def lu mu def dinaa def lu mu def mais ku fi dee ñu ñu jël dossier yi jébbal ñu ko ñu dem foofu képp koo xam ne rayoo sax mais tu la entrain en train d'appuyer ñii di rey par ton langage de haine tu seras dans le dossier moi je l'ai dit à plein de gens j'ai beaucoup d'amis hein, qui fa laa nekkuma ab musuma nekk APR mais j'étais Bokk Yaakaar ñàkk fulla ak ñàkk fayda moo tax ñenn ñi def li ñuy def mais on ne m'a pas accusé de malversation financière après 6 ans et avoir géré 88 milliards loolu indiwu moom mais bu dëgg jotee noppi si la il faut le dire j'ai quitté le rang en travaillant pour le Sénégal et non pour un homme ceux qui travaillent pour un homme ils sont là pour des privilèges c'est la raison pour laquelle je termine sur ce deuxième point pour dire que ces nervis-là n'ont rien à voir Un ami journaliste me disait ce matin, quelle est la différence entre nervi et agent de sécurité <laughs> Mais c'est très simple. Un agent de sécurité, il assure la sécurité des personnes et des biens sur le plan privé. Soit que pour ce que gère ses biens, ou alors assurer la sécurité en tant qu'homme politique. Un nervi, c'est celui qui est payé pour faire de basses euh, euh, des, des, des, des manœuvres, un agent de sécurité, c'est pas ça son boulot. C'est ça aussi qui est là. Je pense que nous avions aussi un contrat de 45 milliards. ñenn ñi ragal ci wax ma ragaluma ko nañ ñuy wax fu mu arme yooyu dugg je pose une question très claire arme yooyu fu mu dugg de toute façon la CPI viendra expliquer clairement lorsque les personnes qui sont décédées inutilement leurs dossiers nous parviendront troisièmement et dernière position gis nga fii neewoon nañu Abdou Diouf président Abdou Diouf n'est pas un n'était pas un homme de poigne mënul gérer réew mi yore na réew mi 17 ans am na lu mu fi def au moins le président Abdoulaye Wade mu ñëwee ñu ne amul karaw àttanul réew mi le président Macky Sall ba mu ñëwee le président Abdoulaye Wade avait dit sama élève la deux mois on n'aura plus de salaire nul n'est indispensable ku pare na nga dem président Macky Sall fi mu toog man mii falaa maa ko fa toogloo ak keneen on sait ce qu'on a vécu en 2012 avec ñoom Mamadou Diop ce vendredi 27 janvier 2012 le jour où le conseil constitutionnel de rendre sa décision moom moo noot jour boobu on était sur la place de l'obélisque bu fekkee xeex nañu nag ensemble contre un troisième mandat waroon na jógee feneen ba mu fekk ba ñi nga xam ne ñoo ko xeex comme le président Macky Sall et d'autres j'ai entendu le 31 mai dernier en plein dialogue national parce que je suis parti au dialogue li ma bëggoon dégg dégg naa ko fa le troisième mandat fait partie des débats bu ko waxoon bokk ci ma jóg génn dem sama yoon on m'a privé de parole et je parle au ministre de l'Intérieur qui n'a pas été sérieux parce que jël na sama nom j'ai dit que je vais parler mais ba ñu ko tegee devant le président il dit celui-là ne parlera pas ça ne m'arrange pas nañ ko yóbbu ci ñoom Moustapha Niass xam nañ samay parole man je ne du ma ko raay mais quand j'ai entendu le président de la République dire ci njëkk ak teraanga ma delloo leen ko ci ndénkaane bu ñu la dénk moo ko ku la ko dénkoon ne la delloo ma ko pare nga nga ne ma non da ngeen may saraxu j'ai l'impression qu'on a fait des choses en 2012 pour rien ba pare teg ci ñi àndaloon ak man en 2012 xam nañu bu ñu bës waxee référendum voté oui ils savaient que j'avais droit à un autre mandat à partir de 2024 faux archi faux c'est de l'escroquerie politique j'étais dedans j'ai voté le oui j'ai fait voter le oui bu waxoon ñun ñi que le oui su ngeen ko voté j'aurai droit en un autre mandat 2024 man duma ko voté ñàkkuma fay keneen du ko voté le référendum alors bu fekkee argument boobu sax mën nañ ko accepter un peu c'est de n'importe quoi mais acceptable pourquoi avoir dit le 31 décembre donc deux ans après 2016 2024 su ma defee sama sept ans ba ak cinq ans ba il faudra partir il pour contredit pourquoi l'avoir écrit dans un bouquin donc l'argument ne tient mais nag j'ose croire encore que fi ñu toll nii en disant que ma xool ma bàyyee leen ko il est en train de tanguer fii dem rek benn issue moo fi def pare nga say ñaari rakka da ngay dem keneen ñëw ci jàmm c'est ça le Sénégal et je pense que je vais me limiter di remercier journalistes yi fi toog yëpp di xam ne tamit le Sénégal benn bopp la dina ma jeexal te waxuma kilifa diine yi nañu génn wax parce que yaa ngi silence la bu ñu xaar bi yëf yi gën a egg fu mu warul egg ñu naan suma ma xamoon il faut qu'il parle c'est ça aussi le Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant.